bàyyi xel way jur yi surtout xale yu jigéen ñi dañuy négliger weeru koor xale yu jigéen ñi dem nañ ba ñoom ñeenti es yi tënk leen ba fonkatuñu weer muy yan es yi leen tënk estati senap sangu solo Fatima mu ngi dégg loolu dafa dem tënk leen ba farataalatuñu weeru koor sunu jigéen ñi da gis koo xam ne am na ngant ngantam jeex na mu bara mu mu mu mu continue. mu jaare fa wari. mu te wax fu dëgg yàlla yàlla lañ ko séqal. suul nañu ndaw suul nañu mag suul nañu jigéen suul nañu kenn te fële kenn du la fa fekk. kon nañu defaraat sunu toogaay sunu rakkuy jigéen ñi yàlla daf leen ne teggil naa leen julli gi duñu ko fay waaye koor gi nañ ko fay. amee boru koor at bañ ne la suba lay suba la tàmbaliwaat woor. yow fayoo ko. te am na ñoo xam ne vingt ans ñi ngi amee